dénkaane Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yee julit yi lay siwtaane dénkaane yi Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yee julit yi lay siwtaane yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne am na bindkat yu bon am na xalaatkat yu bon dañ ko jàppee yonentub fitna te moom yàlla defal na ko muy koo xam ne saa boo tuddee turam loo cay teg sallallahu nga ci wasallam nga ci dégg jàmm jàmm yàlla na ko yàlla di doon ci moom kooku nga xam ne saa su nekk aw turam boo ci déggee rek yàlla mu ngi ci toftal jàmm jàmm jooju sunu borom ak xéewal gi mu sotti ci moom kooku ñëwul ci bii jamono ñëw ci jamono boo xam ne da ciy dikk ngir fitna kon bis bii nga xam ne ñoom ñii dañ cee feeñ jàmm rek la sunu borom def mu war ci ñu war ko cee mën a jàngal mu ñëw nag moom yonent bi bi mu dikkee indi woon ay jikko yu rafet ndax koo xam ne koo mën a wax lim lay wax mooy reetaanam ma ak siiñ ma koo xam ne reetaanam ak siiñam waxkat yëpp a ngi ciy wax di ci bind ba boo demee ci bindkat yi tubaab yi sax ñu ngi ciy wax kon kooku ndax nitu fitna la woon mboolem yonent yi moom rek ngay dégg ñuy wax reetaanam ma mu nekkoon jëmm joo xam ne bu la masaa dalal moom ci suuf lay toog yow nga toog ci kaw ndax wayaf ak simple bu yàlla defoon ci moom mu nekkoon koo xam ne moom yonent bi ci boppam it bu la daan nuyu yaay njëkk a rocc sa loxo waaye moom da ko daan ci daan bàyyi di jàmmasante nii ko sëñ bu sara doon wax ba jàmm nga am jàmm rek jooju moom wax daf daan bàyyi loxo bi rek ba yow yaay rocc waaye du ko dindi kon moom dikkam jamonoom moom yonent bi jàmm rek ko fi indi woon mu ñëwoon nag ci jamono boo xam ne bi mu ñëwee dafa ñëwoon dindi xiram ba mu set ba mu set yonent bi dafa ko fi jëlee woon dugal fi nag leerug yàlla rek te ñu seetlu ne bu ma dee xool daal day mel ni xiram moom dafa dellusiwaat ci suñu jamono bi bu mettee metti ndax léegi koo gis bëggul dara lu dul xam-xam bu ñuul la bëgg a xam xam-xam bu ñuul la bëgg a xam te xiram rek a tax léegi nga gis ne ba barki démb foo dégg ñi ngi naan ña nga ca armeel ya ña ngay gas ña ngay def lii te ay jullit rek a koy def ay jullit rek ñooy def loolu ñooy dem ci armeel yi jàmbur di ko fa def ñooy dem ci sunu armeel yi di ko fi def kon ñu war a jàng ne bu dee ay jullit kon bu ñu ñëwee ba ci bis bii ñu xool ne yonent bi moom bi mu ñëwee li mu njëkkoon a def màbbu xiram ki màbbu xiram ci diineem bëggul ko ko fa dugal kon am na tey njàngat mu réy moo xam ne waras na koo jàng ci ci moom ci jëmmam jooju ci li fi indi woon ci jamono dénkaane yi Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yeeg julit yi lay